ci waa kër ñoom Ousmane sonk moo fi nekkaat ba tey moom moo jàppalu koo xamee ni dafa nekkoon ci wala daf dañu ne ni dafay défendre euh, euh, euh, Benno Bokk Yaakaar wala ñuy jàppee ni tey ci opposition la ne te autosaisine la mooy li ma wax sànq autosaisine mooy c'est une institution quelle que soit la la personne qui l'incarne muy président muy premier ministre muy ku mën a doon ci assemblée nationale ñu wax la ni ci code pénal ci boppam moo tere ngay jël doomu aadama di wax ci moom lu ñaaw massa koo xamee ni dafay am lu muy incarné par rapport ak fa mu nekk quelle que soit sa position quelle soit nga bëgg ko wala nga bañ ko te pourtant il n'a pas saisi comme li ngay wax ñoom toppuñu Bassirou Diomaye Faye talul Bah Diakhaté Ousmane Sonko talul Bah Diakhaté wala Birahim Touré xamul luñ tal di defar wala di jéem a defar réew mi ci ku ci nekk ci anam wala ca lañ la dénk ci kàddu mais leeral na Mélenchon ne ko yow la nga bëgg ak la ngay xeex ak la ngay ak la ngeen gëm ñun gëmuñu ko te boo ñu ko bëggee imposer déclaration de guerre lay doon suñu diggante. ci ci discours boobu nga wax parce que avant ñuy ñuy ñuy accéder ci ci bopp pouvoir bi li Ousmane Sonko doon wax bi ñuy opposé mooy dañuy criminaliser lépp lu jëm si wàllum homosexualité est-ce que du ñoom par rapport ak discours boobu loolu lañu doon xaar xaaruñu woon peut-être. ñëpp c'est peut-être sénégalais yëpp ak ñi nga xam ñoom ñoo nekk également si ku jege parce que daf ni mën nañ ko tolé c'est toléré mën nañ ko toléré fii si Sénégal est-ce que du li ñu doon xaar mooy mu ni que ne ñuy criminaliser lépp jëm si waram ne Ousmane Sonko mbirum homosexualité wala borom ñaari tur yi comme may fàttali ni ñoom dañuy bañ sax ñu bind homosexuel ci suñuy réseaux sociaux <laughs> dagg nañ fi suñu suñu suñu Facebook parce que nañoo bind ci titre bi mhm. bind ci homosexuel te ñoom waa méta mhm. ak tubaab bi dañuy bañ loolu ñoom LGBT dem nañ ba soppi tur bi mhm. gis nga ce débat qu'on veut nous imposer da nga ne Ousmane Sonko dafa waxoon su faloo son Sonko ne pas le président de la République c'est le premier ministre et en tant que premier ministre il a la possibilité bu ñu demee assemblée nationale ci déclaration politique générale am mën na ko bañ a wax de mais la ñuy xeex mooy bu ñu demee ba am majorité à l'Assemblée national bu boobaa mën naa ñëw ne ni léegi dañoo bëgg ñu dugal loi boobu pour criminaliser l'homosexualité mais am na loo xam ne dañ koy criminaliser ba noppi c'est dans nos lois mooy lan lakk contre nature dañ na ni te loolu moom mooy indi mbirum homosexualité boobu ñuy wax góor gu seq góor ñu naan ñu ne jàpp la loxo ci poos duma ko wax ni oustaz Iran di wax naan euh, kuur gi ci gën gi parce que foofu xamoo buy kuur xamoo buy gën waaw non nañu waxante moom moo ko wax et jàngale la ci euh, euh, ci diine l'islam sax dañ koy wax dañuy wax ci diine l'islam kuur gi ci gën gi waaye fii góor jigéen doo wax kuur gi kuy kuur kuy gën na mënoo ko xam wax am na sañ-sañ bu ñu nekkee bu ñu demee ba étape yenn yi ñu passé ko dem assemblée nationale am majorité parce que amaguñu majorité assemblée nationale ñu mën a ne léegi dañoo bëgg man ba ma nekkee euh, candidat wala ma nekk ci biir opposition donte nekkuma le président mais dama ànd ak président te xalaatam mooy sama xalaat sama xalaat mooy xalaatam mën nañoo indi ay loi yu criminaliser yenn actes yi ñuy wooyee euh, mbirum LGBT yi àgguguñu foofu on lui donne le temps de le faire mais jàpp naa ne la ma waxoon la mu waxoon ma ñu koy tuumaal naan euh, frère musulman koy jàppale mais Ousmane Sonko radical nag sax wax nañ ko ko wax nañ ko euh, président Bassirou Diomaye fay ne ni gëmul këru diine te pourtant ses premiers actes yu mu posé mooy dem kër këru euh, dem ci këru diine yi Ousmane Sonko ay actes yu muy posé gis nañ ko seen Cheikh Saliou est que mën ngaa ñëw ne ni nii kii gëmul diine wala gëmul tarixa non c'est-à-dire que moi je je ne juge pas mais je prends en tant que journaliste li ñu naan le factuel les faits la ma gis mais du ma wax loo xamee ne gisguma ko wala dégguma ko wala xawma ko mais ca la mu wax ne ni dinañ ko def ci lu jëm ci wàllu criminalisé mais attendons qu'il aille à l'Assemblée nationale. damay damay laaj. waaw li gën a doy waar ci kàddu yi